waxuk moom waxu làmb waaye Modou moom waa làmb ba ngi wax ci moom ci làmb ndax pour combat am dégg nga ne programme nañ ko moog Ama pour mois d'octobre incha allah. loolu démb benn booy bu ànd ak Anaconda moom moo wax ma ko ne ma programme nañ ko début octobre ma ne ko ah ma ne waaw ma ne ko non yëgu yëgu ma ko sax su ma la fenn. Mhm. ma ne ko yow yaa ma ko wax yow yaa ma ko waxaat tey deuxième personne. Mhm. maanaam bañ ma ko waxee lijjanti wu ma ko sax dama bëggoon bàyyi ba koor gi jàll am moom sax waaye ak koor moom ànduñu quoi mhm. waaw. waaw mais programme nañ ko de sëriñ. a ah, programme nañ ko ñun rek baax na ku ñëw rek baax na man li may wax rek ku ñëw baax ñoom ñaar ku ci njëkk ñëw rek baax na. actuellement ni moom ci li ñu jàpp mooy Ama mooy njëkk a ñëw. mooy njëkk a ñëw. ci kaw mu bëreeg Gris Bordeaux ba pare. juillet waaw hmm. mooy ñëw kon baax na ba tey moomu gën a. démb Ama. non seeraanu ma ko nag démb ay cant laa fanaan falaa ay ndogu ay cant maa ngi fekk naa ko heure bii démb Pikine na ko borom date yi mois de juillet yaag giri mois d' octobre yaag muudu laaj laaj ko ci diggante muudu amaa nag la mu xam le leer na nee na muudu moom moo gënoon a xam ne maanaam man lay njëkk a bëreel loolu moom leeroon na muudu wax jee fi nekkoon rek. waaw hmm, baax na yàlla baax saay Ama Baldé bu jàppee ne moo mun Modou ngi nax boppam de hmm. barke alxuraanu karim du ma bugguma ko sax waat barke alxuraan ama xippil nga xool sa bët bu baax bu la nit ñi nax hmm. munoo Modou de boo hmm. jàppee ne yaa ko yaa ngi nax sa bopp de billahi wallahi ñeme naa jël kaamil dóor sama loxoom fukki Ama Baldé Modou mun barke alxuraanu karim ñeme naa ko Lamine. waaw Modou Lo ak ku leen dàq bëri ci làmb ji gisuma leen. Modou Lo ak Balla. dama leen seeraan mbabat ba mu jeex seeraan leen arène maanaam liñ bëre mbabat bëri wuñ ko sax arène. Ama yegu ci we. Ama yemuñu sax ci catu we. mais est-ce que dàq bëre rek mooy daan. waaw waaw billaahi ko daq bëre moo ko ëpp fit moo ko ëpp doole. doole moo ko ëpp doole moo ko ëpp fit. moo ko sañ-sañ moo ko gën a ñeme. bu ñu tëjee géew bi ay mbokam génn moom dina gestu xool mbokam mais moo du gestu xool ay mbokam. Hmm. Ah, hmm. loolu nee na démb de. Eh, eh, am eh, waaw ah, nee na la Serigne. ko wax de. Ah, luy foofu de ay Latir ak ay. waaw kay ñoom foofu lañ ko teg nag. ñoom foofu lañ ko teg. waaw. Hmm. waaw da nga yaakaar ñoom ci mystique lañ ko teg. billahi foofu lañ ko teg. nga foog ni foofu kese la ko ama war a teg. billahi wallahi foofu lañ ko teg. moom dimbay wax nga bu doon combat dañ koy tëgg nii nii nii. waaw woo la woo sa adversaire ngeen daje estat jour boobu ñu ngeen bëre. waaw nga gis lu jo lu garaaw ci Modou. Hmm. lu doy waar. mais Babacar fu yaakaar ni ñoom fa lañ ko teg est-ce que loolu bokkul ci làmb. waaw waaw fi ñu ko teg ci làmb la bokk te comme li Lamine wax gàllaaj ci làmb la ci làmb la mais 1 pour cent la ci làmb wala 2 pour cent. Mbadou hmm. da nga nar a ngemb ji yéen. ngemb. di ngemb. dina ñaan boo sumee ko lay xool bët yi lay xool ñii naan loxo yi jàpp na tànk yi jàpp na di nga ñaanlu kay muslaay. Ah? gàllaaj buy daan mbër amul muslaay fi am. Hmm? bañ ko la jàpp. te Ama mënu leen a jàpp ci bés boobu ci gàllaaj hmm? mënu leen a jàpp ah du ma ne mënuñu jàpp de segam gën gi mindeef la sunu borom seetaanoon kon mën nañ jàpp ne mais moom ko moom mënu ko ay mbokkam mënuñu ko hmm. ay hmm. leer laa la wax te yemu ca ne na ma démb Lamine Moodu dama kay poobar nii la ko waxee de bu ma paree jox ko booy ñang mu tib masi ani poobar bu paree jox ko booy ñang mu kii masi ko Ama Baldé jël bu la Modou Lo daan ci mbapat boo amul chance dina la ko daanaat arène eh? waaw ni ko daanoon parcelle fii ci mbapat mi boo amul chance dina ko daanee arène wala mu daan ko jël bu gën a ñëw hmm. waaw boo ko daa mel dama gis Modou ci kaw Ama comme wër ndombo la xaw ma lan la ko bënn wër ko ndombo mu teg kaat api boobu kaat api du sit Modou dugal tànk yi ñaari tànkam ñaari tànkam yi mu teg ci suuf. la Modou dugal ñaari tànkam yi fii jàpp ci ñaari loxo yi fu dëgg moom. Ama Baldé mu ngemboo ngemb lu weex sol caleçon bu xonk. mel ni koy dem arène. këll gi moom buret la ma wax sax moom. bi ñoom ñëpp xamul nu mu demee ku kenn xamul nu mu demee man kay li ma la ci wax nii. yow Modou bu toogee dala kay waxaat noonu. da ko bënn wër ko ndomba. déggoo li ma la mbapat ba arène su ma nettalul moog Balla kenn du ci nettali. mbapat ba arène Balla Gaye da doon jël luur moo di jël léegi. ndem si yàlla si père Balla moo njëkk a wax lii sama école de lutte sama turandoo daanul Modou kenn du ko def. Père Balla Gaye Ndour. Père mag ci boppam. waaw Assane Diouf la ma ko waxee jour bi bi Balla Gaye di daan dafa maa ngi toog ci kanam mboq. Babacar waaw ñoom engagement bi ñu waa Pikine jël nga gis am seen ñëw góor ñaa ñëw. waaw fas yéene leen sox maanaam jóg jógal bi ñu leen jógal loolu est-ce que yóbbu seen fit tamit. daa yëpp a génn. kon nee nañ yàgg nañoo génn ah, génn nañ fi indi fi soq Franc defaral ko ku génn te fi indi fi am seen Modou defaral ñu génnaat indi fi Eumeu Sène ñu lënku leen ñuy jooy di ñibbi amitié bu mujj bu soobee yàlla dañ koy lëngu moom. arène national hmm. dañ koy lëngee mu ñibbi. day dox ñibbi ñun ñu del suñu oto ñibbi si. bu ñu amul dañuy dox arène nationale ba parcelle. Hmm. jege nañu. ah. ah Serigne mais Serigne yow na parce que ñoom démb dama gis Eumeu ñëw booy ñang ñëw fii gépp génn. waaw yàgg nañoo génn waaye te Eumeu nee na moo leen di indi te contact dañ koy commencé def foofu ca saal ba. waaye yàgg nañoo loolu noonu bu dëgg si ñoom. du dëgg si ñoom. da laa la wax de làmb làmb laa la wax de. lamb hmm. la wax de kenn wóolul kenn. ñoom hmm? ñoom lamb. Ah. fu ay ténor nekk. kenn du wóolu kenn. mais am na parcelle bii. Ah. Ah. am moo am faas moo am géejawaay moo am feneen ak feneen fu ay ténor nekk mu juboo wax jee fi nekk nii rek bu média yi taxawee nii. ñoom jubóo nañ ndax booy ña ah, ah, waaye yéen a taxawaay ah waay eh, waay yéen a taxawaay yéen journaliste yee taxawaay wóolante wuñu mbër a gën a mbër a gën a gëma yàlla ci lu yàlla bind wóolante wuñu barke alxuraanu karim wóolante wuñu ñoo bokk ndóobu de waay waay mbër laa lay wax de mbër mbër mais ñoom démb wane wuñu loolu sa waay mbër laa la wax de mbër wóoluwul kenn ku yàlla sàkk boo amee combat <coughs> nañ bàyyi yooyu waay mais ama mi leen bëgg a jiite nag ñu ak ñoom ci liggéey bi parce que jëm seen kaw andi ñaari booy dama bëgg gis nga bu dëgg ñu wax ko dëgg ñu waxante dëgg mbër wóoluwul kenn Eumeu seen kan la nekkaloon du Jordan ah digganteem ak Jordan anamu yàquwul ñàkk a a ànd la rek ay wax ñàkk mën a ànd ñàkk wóolu nit bu ñu mën eh, dégg naa sax combat am ak bu njëkk ba ñu ne Jordan moo sàcc ngeemam jaay ko jaay ko yooyu ay détails ay détails ay détails mais est la nga dégg noonu la demee xaw ma nag parce que leeru ma waaw mais nee nañ Jordan bokk na ci ñu ko jaay dégg yow waaw te man Jordan man mii combat boobu lu mu ci daj xam naa ko Jordan booy parcelles yi koj nañ ko mër ko billaay walaay taalaay jour boobu maa teg sama bakkan ne booy bu ko laal ma dégg ma laalaale. dooroon amul lu ma deful ci combat boobu waaye dóor na ma lu nekk dóor na ma ko na ma sax ceinture weñ ah. waaye mais xale Pikine yi pare nañ de. mais Babacar ñi dafa mel ni waa Pikine dañu dañu dañu faussé seen calcul. waaw dafa mel ni loolu moo waaw. waaw li la wax dëgg la daa mel ni li ngeen calculé Pikine da ko faussé mu mel ni loolu nag daa bëreeg Boy Niang bëreeg Ama yéen am loolu ngeen doon wax bi mu émission bi moom mujjee def ak Abou def naa fii la ci yow la les arènes lan laa ko wax dama nga seeraanaat ko bëreeg Ama Baldé moo ma gënal ma parce que ñëpp dañuy jàpp dañ ko daw lan laa ko wax foofu dama nga seeraanaat ko bëreeg Ama Baldé moo ma gënal mais li la muy wax jar na bàyyi xel sëriñ dama gis yéen benn saaru nervosité bu ngeen di wax ci ama lan la. non non amuñ. mer merewuñ ko teeluñ ko dara jàppaluñ ko dara taalibe la ñuy taalibe waaw te ñoo fa ñu yaakaar ñu Serigne Saliou ñoo ko bokk kon awma lu ma ko ci teel. non maanaam teel sax mbir pas teel ci xol quoi mais mook adversaire boo xam ne dafa leen a xëy na da ngeen xaw a xalaat ne dafa mën ci yéen dara ba tax ngeen xaw ta mën a gérer ay affaire am wala déet. kenn ci ñun dara kenn rek a mën ci ñun dara te moo ñu daan ñaari yoon mooy Balla Gaye def. mais buñ daanagul mënoo ci ñun dara dara dara dara. amaa mënu ci yéen dara. waaye Louga yi saa yi mënoo ci. waaw booy ñaar booy defaat léegi booy ñaar. ay moromu Modou lañu. moromu Modou ma gëm ni ma gëm ni Modou ñoom ñaar ñëpp bu ñu taxoon benn takusaan mu daan leen ñoom ñaar ñëpp ci benn takusaan. ñoom ñaar ñoo ñu. billaahi wallaahi taalaahi. barke alxuraanu karim. bu ñu ñëwee ñoom ñaar bisu làmb. billaahi wallaahi taalaahi benn ngem bu mu ngemboo lay ngemboo daan ci Ama Baldé par daan ci Boy Niang. dañ koy waaye nañ dem nañ dem stade bu gën a mag ci Sénégal ñu tegee fa làmb ji. ndax entre vingt cinq bi. Boy Niang taxaw mu boña taxaw ama taxaw ñoom ku leen neex rek ñoom waa Pikine nañ waxtaan ku ñu njëkk a ñëw hmm. waaw yow